benn nit bu ñàkk bakkanam ak fukk ak juróom benn yu jëlee ay gaañu gaañu yu métti de loolu mooy bilan accident caravane bu Pastef bi am fii la ci département bu Mbacké ci talaata jëlee mbir yi nag mi ngi xewee fii ci dëkk bi la ñuy wax Daaru Nayim digganteem ak Dalangaabu ci dëkk bu ñuy wax Dagg comme ni ñu koy amalee nag gannaaw ba ñu doolee campagne bi ba léegi cortège bi mi ngi jóge woon fii la ci Mbacké wutali woon daaru nayim bi ñu ñëwee ba tolloog dalangaabu jël raaraan bi ngir wuti daaru nayim ci la pick-up bi nga xamante ni da doon daw daw yu baree bari tayaboon ba fees dell ci la daal xalangu kenn ci ñoom nag ci la daal ñàkk bakkanam ki ci ñàkk bakkanam nag di Modou Tall di militant wu nekk file ci dëkk bu sell bi la di Touba ci quartier Sam ñoom ñëpp nag ñi ci amee gaañu gaañu ñu ngi file ci hôpitalu Seexul Xadim bi nekk file ci dëkk bu sell bi la di Touba de ngir ñuy nemmeeku seen yaram ci ginnaaw bi nag responsable Pastef bi nekk file ci département bu Mbacké di Cheikh Thioro Mbacké moom de daal na xam ne de lépp loo xam ne seen campagne la de daal nañ koy ajandi ba jëmmi jamono sëñ Jibril Khoule cant ak ngërëm ñeel na la ba tax na noonu la ñuy wéyalee li nga xam ni moom moo di xibaar yi ci tënk ak ki nga xamante ne moom moo di professeur Daouda Ngom di ministre bi nga xamante ne moom la ñu dénk li nga xamante ne moom moo di environnement ak transition écologique moom nag mi ngi xamle ci lu soxal wàccaayu euh, COP 29 bi nga xamante ne dinañ ko amal muy wax rek dëkku Afrique yi dañu war a booloo seen doole ngir rek mën a am li nga xamante ne moom moo di ay financement yu mucc ay ngir rek fexe xeex li nga xamante ne moo di réchauffement impact climatique bi ñaan doon doo teewlu ko. bu ñu nee la minimum y trois cent sénégalais qui seront à Bakou ça veut dire que foog ñu waxtaan déggoo ci kàddu xam position Sénégal défendre aussi position Afrique parce que naam suñuy intérêt d'abord les intéret du Sénégal waaye dañuy représenter aussi Afrique et pays africains yi comprendre nañ ko léegi ay négociation yu mel noonu bu ñu demee tas ku ne jaar sa yoon souvent du ñu am dara dañoo bëgg ñu waxtaan wax lan mooy finance climatique ñu également euh, xool nan la ñuy def ba engagement yi nga xam ne moom la yenn dëkk yi di jël yenn partenaires techniques et financiers yi ci financer climat bi ñu def ko fonds yi bëri na waaye souvent accéder ci du yomb li may wax ne boo jëlee téeméer boo jël ñun liñ ci am ëppul juróom ci Afrique te loolu dafa war a jeex donc position Afrique mooy ñu revoir finance climatique xool nan lañ koy yokkee fonds yi mais xool également nan la ñuy alléger parfois procédures yi pour les pays les moins avancés dañu wéyal xibaar yi ak lu soxal ak ak yelleefu doomu aadama yi ba tax na nag ñu amaloon ci ab lël bu yaatu ki nga xamante ne moo di professeur Amsatou Sow Sidibé euh, xelam wàcc màcc loolu ci li nga xamante ne moom moo di jàngale wàllum droit ci université bu Ndakaaru moom it euh, nga xamante ne mooy euh, présidente commission nationale des droits de l'homme amaloon na ko boobu leen ndajo fii ci Ndakaaru ngir rek xoolaat li nga xamante ne noonu la nit war a mën a taxawee surtout ci ay àqam ak yelleefam ñu àndandoo teewlu ko ku nekk dooleel sa moroom ndax li ñuy wax ëpp e yu examen périodique universel loolu àddina bi kuréel la buy buy buy jóg pour xool dëkk bu nekk état bu nekk fan la toll ci àq ak yelleefu doomu aadama Sénégal defal nañ ko ñeenti yoon bu mujj bi nag janvier 2024 la woon ñu jox ko ay recommandation ne ko lii wareef la na ko def ñu bare lool nag ndax mët na ñetti téeméer ak euh, ñaar fukk ak ñaar recommandation c'était bien ça 322 recommandations ci jigéen yi ci constitution yi ci loi yi ci ñi nga xam ne dañuy dund ak handicap ci xale yi ci lu bare bare bare bare bare ci même li ñuy wax développement li ñuy wax environnement yooyu yëpp mu nga ca alors dañuy toog nag dooleel suñu bopp ci mbir yi parce que Sénégal dafa war a tontu ci recommandation yooyu jël na ci deux cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam euh, ñetti téeméer bu manqué benn ne d'accord na ci am na ñaar fukk ak ñett yoo xam ni pour le moment daf ko teg fee waxul ndax d'accord na wala d'accordagul dañuy dooleel nag suñu suñu suñu bopp ci mbir yooyu lu am solo la Mhm. Euh, dañuy wax euh, lu soxal wàllum euh, politique foofu ca diwaanub Mbàkke ak ki nga xamante ne moom moo di Alioune Sarr bu mu nekk leader bu parti Alliance pour le Sénégal moom nag dem na jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa PASTEF ci lu soxal élection législative yi nga xamante ne jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre bi ñu nekk ba tax na ñu àndandoo teewlu ki nga xam ne moo di Alioune Sarr. dañu gis ne. Sénégal bu 2023 Sénégal bu 2024 dafa laaj ay jumtukaay yu bees jumtukaay yooyu nag pour ñu indi ko ci réew mi dafa laaj doxalin politique bu bees politique boo xam ne il faut ñu song mbir yi maanaam jafe-jafe yi di anam boo xam ne mësul am ci réew ñu tuddee ko bi ci njëkk mooy le défi de l'industrialisation maanaam ay millions ngi emploi ay millions ngi xëy la koy sos ci réew mooy ay entreprises yu dëgër a dëgër lépp lu ñuy liggéey ci gaz ak pétrole muy ay jumtukaay muy ay matériel muy ay équipement Sénégal dafa nekk un pays industrialisé dans l'écosystème gazier et pétrolier ñëw ci wàllu mbéy tey boo ñëwee Touba tabarkalla gerte gi soo demee tey gis jigéen ñi ni ñuy liggéey ci gerte gi ñii di xolli ñii di nal muy industrie Sénégal at bu nekk Sénégal yi ngi jégaan yi deux cent mille tonnes dëwlin boo ko xaymaa ci alal ñaar téeméeri milliards la ci alal ndax ceebu jën ñi sant Sow ak ñi sant Dieye tabarkalla dañ ko bëgg deux cent te ñuy mën a béy gerte ñun ñu ne alliance pour le Sénégal mbéyum gerte Sénégal dañ ko war a dooleel jox béykat jiw bu doy pour que Sénégal mën a produire au minimum 700000 tonnes dëwlin ndax 700000 tonnes pardon gerte ndax 700000 tonnes d'arachide mooy produire 200000 tonnes d'huile yaakaar naa tey bu ñu ne béykatu senegal ñun dañu jox jiw. ngeen proposé mat 700000 tonnes gerte mais alal bu bëri la boo xam ne mën a jox le paysan sénégalais pour l'autosuffisance alimentaire. aménage bi 200000 hectares yaakaar naa di fa béy di bojj di transformer di transporter le yi dans les marchés du Sénégal su boobaa ce sont des millions d'emplois qui son créés sur les terres du Sénégal et en ce moment là xale Sénégal yi. doot ñu quitté Sénégal nan dañu jël gaal dem bitim réew lii nag mbokk yi su ngeen gisee ma tàmbali bi pour def ko dafa laaj ay réformes may am na yéene la souveraineté du Sénégal dans le domaine agroalimentaire mhm. euh, soxna Diarra Bousso lii nag moom moo nekkoon xibaar yi fi nga xamante ne euh, ci tënk la ba tax na nag dañuy dem xoole ji lu jot a xew foofu ca diwaanu Touba dañ ciy ànd ak sëñ Ousseynou Mbodj. kuy jaay kees kuñ ci jaay kees nga sotti ko moo taxoon inam si jël ci gafakaam lu tolloog euh, ñaar téeméer njëgu ñaar téeméeri kees une valeur de 2 euh, millions cent mille pour dimbalee leen ko pour ñu mën a jënd ay kees aussi di ci remercier encore une fois ki nga xam ne mooy directeur marché central au poisson bu Touba muy maam Xari Mbàkke mooy wax dëgg yàlla mu def ci liggéey bu am solo wax dëgg yàlla yónnee fi moom it jàppale leen ci 90 caisses nga xam ne presque boo boolee lépp dafay nekk ay 3 millions 680 mille de valeur vraiment ñu ngi leen ci sant bu baax loolu daal moo waraloon suñuy tànk fii tey ci Touba su ko defee ñu def remise symbolique bi ah ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk suñu xarit yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi te ñun lañ bokk di lancé nag appel parce que appel bi may lancé maa koy lancé ñi nga ne ñooy suñu kilifa muy suñu ministre tutelle nga xam ne mooy suñu kilifa ak ki nga xam ne mooy directeur DPM nga xam ne mooy Ismaïla Ndiaye di lancer aussi directeur DP DITP nga xam ne mooy euh, Abdoulaye Diouf nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa suñu amee problème ci ñoom la ñuy jëm di leen wax ne leen il faut ñu dimbale marché yi parce que marché yi détaillants yi sonn nañ te aussi dañuy am problème pour li nga xam ne mooy seen outil de travail yu ñuy liggéeyee Touba nag dëkk bu di ñaan daal mu dem le ministre mu fexe ba wax dëgg yàlla ay xotti kees ak yooyu nga xam ne ñu ngi koy liggéey lu leen ci mën a dimbalee ñu dimbalee leen ko dimbale marché waa